al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi daw leen di ziar bu baax waaw man dama bëggoon a indiwaat ay complément tuuti rek par rapport ak audio bi ma indi woon keroog ndax am na ci yeneen information yoo xam ne jotuma ci woon tontu euh, bi ma dégluwaatee audio bi euh, muy euh, concernant césarienne yi waaw parce que am na ci foo xam ne maa ngi dégg ñuy wax muy wax ni fii dañuy xotti rek euh, pour leeral euh, OMS dafa wax ni taux de césarienne yi intervalle bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu joxe normalement que ni kenn waru ko dépasser mooy entre dix ba quinze pour cent dix ba quinze pour cent donc césarienne yi ci pays bi warul dépasser intervalle boobu. muy Sénégal muy fépp funtu doon Italie France partout dix ba quinze pour cent léegi ñun fii ci Sénégal deux mille dix huit bi passé ñu ngi woon ci neuf pour cent ci taux de césarienne au Sénégal ce qui veut dire que ni agsi wuñ sax ñun ci intervalle boobu neuf pour cent la ñu am deux mille dix huit taux de césarienne kon yaakaar naa ne ñun war a opérer donc ñun ñooñu la ñuy opérer. waaye ñi nga xam ne dañu war a accoucher normal dañ leen di bàyyi ñu accoucher normal Sénégal couverture maladie universelle dafa rendre gratuite césarienne kon yaakaar naa ni foofu business amu fa ndax loo xam ne dafa gratuit amu benn intéret di créer ay césarienne pour di créer ay césarienne rek mu di la neex césarienne dafa am lu ñuy wax indication maanaam su fekkee dangaa jël décision nga ne dangay opérer malade bi xam nga du yow chirurgien bi rek yaa koy opéré yow ak anesthésiste bi yéenee bokk liggéey bi équipe la moom li mu lay njëkk a laaj anesthésiste bi nga xam ne moom mooy def anesthésie wam lan mooy sa indication maanaam lan nga euh, ci lan nga sukkandiku ba tax nga ne kii mënul accoucher normal waaye wala waaye dañ ko war a nga wax ko ko ndax léeg-léeg moom indication boobu da ciy sukkandiku pour mun a xam ban façon anesthésie lay defal soxna si te boobu. dafa bari ay risques yu ci nekk donc yaakaar naa ne risques yi ne ci anesthésie kese waxuma yi ne ci opéré de waaye risques yi ne ci anesthésie kese ku ko xam doo dem di opéré rek pour simple opéré parce que da bëgg a noonu mu neex la donc risque yooyu nga xam ne moo ne ci anesthésie bi ak ci opéré bi rek boo ko xamee dëgg-dëgg di nga xool bu baax saytu bu baax jàngat bu baax bala ngaa dugal nit ci bloc di ko opéré ndax césarienne kon yaakaar naa ni euh, euh, côté boobu moom euh, leer na donc comme intervalle bi déjà fourchette bi nga xam ne moom la norme bi OMS joxe entre 10 15 pour cent ñun àgguñu ca kon mënumaa jàpp ne li ñuy opéré dafa bari am na nag noo xam ne bu fekkee nit ki noonu la interprété day jàpp ne li ñuy opéré dafa bari ndax boo jëlee exemple hôpital bu mel ne Matlaboul Fawzeyni wala hôpital bu mel ne hôpital Pikine biir Dakar wara sax centre de santé bu mel ne euh, Gaspard Camara wala Philippe Senghor foofu boo ñëwee nga gis seen ay chiffres ci li ñuy opéré léeg-léeg day doon 50 pour cent ci accouchement yi wala sax quarante pour cent wala mu ëpp ko wala mu ëpp sax 50 pour cent foofu boo xoolee rek danga naan ñun dañuy opéré rek c'est parce que fi nga ñëw utiliser ko comme référence moo tax nga am xalaat interprétation boobu ñu yooyu ay structure de référence lañ structure de référence nag ñi jaaxle rek ñoo fay ñëw ndax ñi nga xam ne dañoo war a ma dañu war a accoucher normalement duñ dépasser poste de santé ba wala centre de santé ba donc ñoom suñu amee lu leen dépasser rek mooy jéem nañ ba sonn accouchement bi mënul nekk ndax léeg-léeg mun nga xalaat ni nit ki dina mën a accoucher normal mais ci biir mat bi mu am lu présenté wu lu tax nga ne kii dañ koy césarienne cas yooyu yëpp dañ leen di yóbbu ci structure de référence ba structure de référence bi nag léeg lu mat fukki poste de santé wala ñaar fukki poste de santé wala ñaar fukki centre de santé ñoom ñëpp ci benn structure de référence la ñuy évacuer donc loolu boo ko xoolee ci ngay comprendre ne taux de césarienne bi dafay bari ci structure de référence bi te loolu lu jaadu la ndax ñi nu fay indi ñëpp day doon ñoo xam ne dañoo war a rek ci saase ñu césarienne leen en général lu ci ëpp dañoo war a césarienne ci saase ngir sauver seen euh, yaay ji sauver tamit doom ji donc moo tax boo jël référence doo ko jël ci structure de référence yi ndax ñoom li ñu polariser dafay bari li ñu li leen li ñu li ñu boot dafay bari te ñooñu ñu boot ñépp lu leen jaaxal rek foofu lañ koy indi te en général lu leen jaaxal rek ci bloc ba lay mujj donc booy jël référence yi doo xool foofu sinon rek da ngay juum da nga naan bu boobaa da naan ñun dañuy opérer dañuy opérer dañuy opérer donc buñ bu bu fekkee xool nañ nag estimé au niveau national ci la ñuy soog a mën a xam ndax ñun dañuy abusé ci césarienne yooyu wala déet par exemple Europe am na lu fa am loo xam ne césarienne de convenance la ñun loolu fii duñu ko accepté xanaa peut-être nga ne da nga am sa xaalis nga bëgg a dem privé peut-être am nañu koy def waaw mais li ëpp ci ko yi duñu ko def césarienne de convenance moo koo xam ne dafa ñëw rek ne man bëgguma mat dama bëgg ñu opérer ma ma accoucher par sama choix loolu nag amut ci benn hôpitalu public gisuma ko ci benn structure publique césarienne de convenance yooyu nag Europe la ëppee waaw foofa moom ñoom boo ñëwee ne dama bëgg accoucher par césarienne mun nañ la ko autoriser nga accoucher par césarienne mais fii Sénégal ñun amul ñu sax boobu jot ku ñu dugal ci bloc ku ne rek day fekk ne indication bu jar ñu opérer la ma nga fa ñu di ko soog a def beneen bi ci des nag mooy am na ñoo xam ne Europe dañ leen di opérer ñaari yoon ba pare ñu baleen ñu accoucher normal alors que ñun fii Sénégal du ñu ko def li tax du ko def mooy jumtukaay yi ñu surveiller kooku ñu opérer ñaari yoon pour jël risque bàyyi ko mu accoucher normalement ñun amuñu ko ñoom mun nañu calculer contraction utérine yi yi ñëw ci butitu njurukaay bi pour bu fekkee dafa foor ba nar a teppi ñaw bi nar a am hypercinésie ñu daal di gaaw dugal ci bloc bi daal di opérer. mun nañ ko ci jigéen ñi nga xam ne opéré nañ leen ñaari yoon ñëpp ñu defal leen surveillance boobu bu ko defee danañ am chance pour accoucher normal te fii ñun Sénégal amuñu loolu am na ñu ko am waaye bariwul te comme bariwut soo ko xasee autorisé rek mënutoo koo tere fenn te boobaa contrôle bi day échappé loolu moo tax fii am ay indication yoo xam ne ñun dañ koy am fii di ko opéré te ñoom Europe du ñu ko opéré te même malgré loolu sax teewut ñoom ñoo ñu ëpp ay taux de césarienne fuuf gis naa ay taux de césarienne yoo xam ne 28 pour cent en Italie taux de césarienne de 28 pour cent léegi nag euh, ma ñëw ci affaire ni nga xam ne prestataires yi noonu lañuy ñuy traité malade yi ñu ngi ciy wax ne am na wax bu ñàkk teggin boo xamante ne nii sage-femme bi dina ko wax léeg-léeg jigéen bi nga xam ne dafa ñëw ngir matu si mooy li may wax rek benn pompiteer bu nëb ci saaku mun na yàq ñëpp mën na yàq pombiteer yëpp boo ko seppiwul sànni wala boog sax ma waxee ko neneen euh, mën nañu jaay ci ci benn euh, jëf wala benn wax bu ñaaw bu nit wax rek pour généraliser ko ci ñëpp alors que demeewut noonu man kàddu googu maa ngi ko doon maa ngi ko maa ngi ko doon dégg même bi may def sama formation fac médecine avant même may def sama sama spécialisation mooy kàddu boobu ndaw si wax te mu ñaaw torop te ñu di ko jëmale ci jigéenu jigéen bi ñëw di matu loolu fi ne boo demee benn nit a ko def rek mu tasaaroo ci ci ci ci dëkk ba yëpp ci ci dëkk tasaaroo ci Sénégal gépp ndax wax bi ni mu ñaawe mais foofu may wax ne problème de personnalité la gis nga nit ki nga xam ne dafa ñàkk teggin ñàkk yar ñàkk yërmande bu doonee jikko ju ne ci moom fépp fu mu nekk de mu doonoon sage-femme ak mu doonoon médecin mu doonoon un administrateur rek mu doonoon un gestionnaire rek mu doonoon un un un avocat ku mu munti doon rek jikko yooyu bu nekkee ci yow fa nga nekk di fa liggéey loola nga fay wane. donc pour wax ni foo demee ci maternité gis fa ku ñàkk kersa wala mu ñàkk teggin te ñàkk yërmande rek boo geesoo ci wetam gis fa ñaar mbaa ñett ñu laabir am yar ami teggin tey traité malade yi correctement. donc bu nuy généraliser ba tey ndax euh, kii médecine surtout maternité dafa sensible sensibilité boobu nag tax na lu ndaw rek day daal di indi indi indi interprétation boo xamante ne ni manque de considération lay nuru maanaam ñàkk a wekk nit ki wala ñàkk koo respecté te léeg-léeg sax euh, sage-femme bi am comportement boo xam ne mun na nuru lu agressif fekk ne du agressiful dafay jàppale sax ku jigéen ki donc ñu ñu xam ni problème de personnalité moom ku ko xas am métier boo ti exercer rek buñ buñ la fa fekkee comportement boobu danañ ko gis ci yow ndax ni ngay gisee ku ñàkk kerse ci médecine bi ci sage-femme yi wala ci ci ci biir euh, personnel de santé bi noonu ngay demee ci administration bi fekk fa ñu mel noonu ñoo xam ne boo ñëwee di lijjanti say papier da ngay wax ak ñoom duñu la sax faale waaw fépp la am donc problème de personnalité la ku mel bu fekkee nag far ñëw nga nekk ci métier boo xam ne dafa laaj laa biir laaj yërmande laaj ab yar ak i teggin donc day doy waar mu mu exercer liggéeyam boobu ndax jikko ak li ñuy wax rek jikko ak borom pax te bu doon bu ñuy def formation bi duñ leen ci former sax à waaye dañ leen ci former bu baax ci comportement bi ñu war a am envers malade yooyu waaye tamit ba tey rek bu ñu généraliser ndax foo gis ku mel noonu rek gis ñaar wala ñett ñu wuteeg moom ca côté ba mm, waaw loolu laa leeral yooyu daal laa bëggoon a indiwaat tuuti rek ci ci ci affaire césarienne yi ak ci comportement bi nga xam ne ñenn ci personnel bi ñu ngi koy am di ko jëmale ci malaat yi te it mu ñàkki teggin torop waaw euh, Sénégal nag wax dëgg jàmbaar lañ ndax ñi ngi def ay jéego yu bari pour yokk jumtukaay yi pour liggéey bi ci maternité bi gën a gën a jaar yoon di yokk recrutement yi di yokk plateau technique yi donc yaakaar nañ ni tey boo xoolee ci ginnaaw di nga xam ne amélioration bu bari am na surtout ci côté maternité te it césarienne yi ñuy wax bokk na ci li fi dindi euh, loru ci wasin ci yaay ji wala loru ci juddu ci bébé bi waaw césarienne bokk na ci li wàññi bu baax taux de mortalité maternelle et néonatale waaw donc loolu Euh, ñu ci vraiment tey muy lu rafet le fait que ñu gratuit mu ñu rendre ko gratuit au Sénégal muy muy muy lu rafet maa ngi jéggulu encore une fois bu dee am na kàddu yu may yëkkati yuy ñagas di balu àq ñëpp jërëjëf